tey nag dafa nekk bés boo xamante ni lu am solo la ci liggéey bi nga xamante ni moom lañu ñu ministère de la justice ak liggéey bi nga xamante ni gouvernement Sénégal daf koy def mu nekk liggéey boo xamante ni xale yi nga xamante ni dañu nekk en difficulté te yoon war leen toppatoo jël leen dénk leen ay kuréel yoo xamante ni ñoo leen di accompagner. Euh, liggéey boobu liggéey bu am solo la dañuy fàttali ne 1976 dafa am ay xale yu doon manifester ci Afrique du Sud Soweto dëkk bu ñuy wax Soweto bi ñuy manifester li ñu doon manifester boobu dañ doon revendiquer rek di réclamer euh, ñoom tamit ñu am éducation mooy yar ak jàng boo xamante ni moom la ñi dëkk foofu te nekk woon ay tubaab am. ñu ne ni ñuy jàngalee doomu tubaab bi ñun tamit doomu nit ñu ñuul ñi dañoo bëgg ñun tam ñu jàngal ñu ñu am éducation suba ñu mën a jariñ suñu réew ñoom nag bi ñu defee boobu répression moo ci amoon mooy dañoo tiire ci ñoom ñu ci bari sax ñàkk ci seen bakkan loolu nag nekk lu am solo dans la conscience africaine damay wax sax dans la conscience universelle am solo boo xam ne dañu jël sax léegi 16 juin bi ne dañ koy déjee def ko journée de l' enfant africain journée boobu nag nekk na journée boo xamante ni dëkk yu bari ci Afrique dañ koy dañ koy euh, célébrer et bi nag du nekk ay fête rek ak ay xumbal yooyu déedéet at mu nekk dañuy jël benn thème boo xamante ni am na solo ci xale yi ñu jël thème boobu jagleel ko bés boobu Sénégal nag yàgg nañ ko di ko célébrer yàgg nañu di honorer bés boobu. dañuy gis sax ne comme bii rek xale yi dañuy ci journée yooyu dañuy def ay activités yu bari ay randonnée pédestre di def ay théâtre ak ay def ay échange wala def yeneen yoo xamante ni dina yee yi ci àddina ren nag dañoo jël benn sujet benn thème bu am solo dañ ne xale yi ci environnement xarale yu bees yi te xarale yu bees yi suñ koy wax daanaka mooy internet ñun xale yi ak internet ndaxte dañoo seetlu ne internet lu am solo la tey daanaka tey ci àddina bi yëpp munoo gis koo xamante ni du utiliser internet ndaxte internet day yombal information bi internet day yombal communication léegi ku neex mën nga communiquer ak ku nekk fu mu nekk ci àddina bi internet day yombal tamit nit ñi léegi di xam lu xew fi mu nekk nii ku connecté wu ci internet mën nga xam lu xew ci àddina bi yëpp fu dara xew ci internet à minute qui suit ñëpp xam nañ ko ci àddina bi internet day yombal suñu liggéey léegi ñun ñëpp ci ay whatsapp la ñuy liggéey ci réseaux sociaux yi euh, euh, yi euh, téléphone ak yooyu donc internet day yombal liggéey bi internet day permettre nit ñi ñu am sax ay liggéey yu bees yoo xam ne bu njëkk ba kenn xalaatu ko woon waaye léegi dëkk yu bari soo fa demee liggéey yi nga xam ci internet lañ koy def boo ëpp sax li ñuy wax liggéey traditionnel yi donc internet lu am solo la fi mu nekk nii jàpp nañu sax amul benn dëkk boo xamante ni mën na passé bu internet yenn dëkk yi sax su amee ay problème de sécurité ba nga xam ne dañoo war a wàññi internet bi wala ñu ralentir ko sax dañuy gis ni activité économique bi di wàññeeku waaye yenn saa yi nag sécurité moo koy laaj ndaxte sécurité nag c'est au de tout ndaxte su sécurité amul dara amatul te wolof day wax ne bala nga ne naam ne fa donc yenn saa yi su ko laajee su sécurité dëkk bi nekkee en jeu na ñu wàññi tuuti internet bi te du yàgg sax su problème sécurité bi dépassé waatee rek mu ñëwaat. loolu day wone en tout cas importance bi nga xamante ni internet am na ko waaye nag dañu gis ne tam internet am na ay inconvénients tam yu bari am na lu ci baaxul gis nañu ne ci la ñuy profité tamit di def luy bon di def ay jëye yu bari yoo xamante ni ñu ngi koy wooye cybercriminalité cybercriminalité mooy lu ñuy utiliser espace internet bi pour def ay ñaawteef yoo xamante ni internet moo koy permettre wala sax da koy yombal ndax su internet amul woon am yoo xam ne du mën a vol d'identité te loolu dafa nekk loo xamante ni baaxul ci suñu société bi baaxul surtout ci ñi nga xamante ni ñooy xale yi ndaxte xale yi souvent amaguñu maturité bu leen di permettre toujours ñu mun a ràññee lu baax ak lu bon su boobaa nag def defkatu ñaawteef yi nekk ci internet dañuy profité ci loolu nag di manipuler xale yi leen won yu warul gis leen wax yoo xamante ni waruñu koo xam wala ñu bëgg leen wàccee ci yoon bi nga xam ne mooy yoon jub donc loolu moo tax xale yi dañ leen war a waxtaan waxtaan ak ñoom sensibiliser ci activité wu internet waxtaan boobu nag tey waxtaan bu am solo la waaye maa ngi félicité bu baax directeur Amadou Ndiaye ndaxte moom gis nañu ci ministère de la justice liggéey bu rafet lay def li muy liggéey yépp da koy teg ci yoon tey ni mu organiser lii lu rafet la te maa ngi koy rafetlu mu invité tam ay experts. yoo xamante ni xam nañ leen ci dëkk bi ci domaine boobu nga xamante ni mooy protection de l'enfant mu ñëw woo leen fii pour ñu séq waxtaan bi waxtaan bi nag su ma ko gisee ni ñu ko organisé ak ñi ñu fi invité pour ñu séq waxtaan bi dañ ciy am yaakaar am ci yaakaar ndaxte président Macky Sall loolu la ñu dénk président Macky Sall li mu ñu dénk mooy xale yi nañ leen protéger xale yi nañu xool lan mooy nekk seen ax ak seen yelleef xale yi nañ leen indil protection bi ñu soxla loolu moo indi d'ailleurs DSPS ñu changer dénomination bi pour changer vocation yi gën ko renforcer pour mu gën a mun a toppatoo xale yi nga xamante ni yoon daf leen war a toppatoo du mu wax yoon daf leen war a topp waaye yoon daf leen war a toppatoo importance su loolu nag moo tax monsieur le directeur ma la koy wax di ko wax invité yépp ne gouvernement bi ministère de la justice ñu ngi xaar recommandation yi nga xam ne mooy jógee ci seen waxtaan bu am solo bi ndaxte waxtaan boobu jàpp naa ne yéen ñi nga xamante ni yàlla may na leen xam-xam ak expérience ci loolu su leen ci waxtaanee ba jébbal seen waxtaan euh, état bi su ko état bi mettre en œuvre yaakaar naa ne xale yi dina ci gagné réew mi dinañ ci gagné maa leen di sant leen gërëm leen wax nag bon symposium jërëjëf.